numéro 2 Wassare Lamb bi mooy septième combat de la soirée diggante Ndiatou Pikine ak horaire noo <laughs> ko am ne waaw waaw noonu la Ndiatou Pikine horaire <laughs> xamu ne man instant yi xam naa lamb eh Ndiatou Pikine moo nge am lu vert li moo ñu horaire moo jàkkaarloo ak ñun ngem bi boo boo gisee nga xam ne ngem Falaye Baldé la eh Caatu Pikine cokkaas na horaire ngay <laughs> déglu horaire moom ngay déglu horaire moom tànk de moom jotul def dafa am temps moo tax moo ngi ne nemmu nemaara ne tekk tekkaara caat na dafa ay cafar-cafar moo taxit combat bi daal ni ngay bëree nii la horaire ne na tekk Caatu Pikine moo ngay ñamar ñamari ñaari mbër yaa ngi Leewtoo si diggante Caatu Pikine ak Horaire ku nekk cokaas na mais dëgg si ñoom maa la wax nii dëgg si ñoom Horaire xel si tànk ba waaye nu la waxoon lii man de waaye yow lii Horaire xaaral maa moom ñoo bokk li ñuy xalaat eh bu koy suq 1 2 3 4 5 ah mu ngi koy baare ba léegi mu ngi koy ngi suqi ba léegi cat moo ngi suqi caat Pikine day sëma wala caat Pikine da ngi suqi oree ngay jël rek tànk demam dadu def mbaa du la romb caat Pikine oree mbaa du la romb caat Pikine a pet bu suuf est-ce que boo koon sëmal sëlëb lay wax sëlëb ñaari Horaire jàpp na ngemb Caatu Pikine dafa mel ni jàppul côté bu ñuy wan jàppul waaye moo ngi suqi moom waaye Horaire fu mu dugal ba bay baax da koy permettre Caatu dem fenn danaan nemb moo tax Caatu dóor dóor na mu daal di bàyyi ngemb li Horaire ak na lu muy xalaat Oranje nar na ko bëggee bët taxawaat caat caat caat Oranje <laughs> ngay suqi at bi wiin xoolal déet eh, eh, ba léegi est-ce que baax na ah waaw dem ñaar fu mu toll nii caat na benn gerte mais nan la ko dem ardo ardo bi sifflé waaw caat mën na ma mbëri diggante ñaari mbëri duggaat nañ si géew gi si diggante horaire ak caatu Pikine caatu Pikine moo jàkkaarloo ñun ngeen moo ngeen mu falaay ba lewi horaire moo ñëw ginnaaw horaire cuq na eh horaire cokkaas na waaye dem caatu Pikine fayu booy Pikine loxo def mu fayu Orange dina tànk ba da koy daan da koy daan tegal na ko sées daan na ko waay waay lii lan la nii Orange waxoon naa la jël tànk heure demul du dem xamoon naa ni Orange bi dina la romb romb na ko nen ko xel la bëre la doole la déggal loolu